Touba Khayra Touba Khayra yéen ñi dëkkee jaaxle ngir am ay meubles yu baax te ànd ak qualité enfin la solution ñëw na ak menuiserie tapisserie Touba Khayra lépp loo leen soxla ci wàllu meuble ci seeni salon ak ay fauteuil de qualité exceptionnelle chambre à coucher wala nga bëgg réfection maanaam defaraat ba mu yànj lool bul am jaaxle dawal gaaw chez Touba Xayra tapisserie menuiserie yemul foofu de ñi bëgg seeni coussin oto ànd ak jamono ak qualité Touba Xayra moo si mën loolee lépp mbokk yi ci ay prix maanaam njëg yu exceptionnel jàppandi lool jàpp leen adresse bi ñoo nga ca Géejawaay fa pare ak tournal Serigne Assane Fall ak ca Kër Massar saf ko ay ndaw yu sawar dynamique te mën lañuy def ñoo fa nekk mën nga également aussi def sa commande ci lépp loo bëgg ci wàllu meuble loole ci 77 498 72 72 77 713 94 57 wala ci 76 490 72 12 ak menuiserie tapisserie Touba Xayra njàmbatu ci wàllu meuble jeex na tàkk. Touba Khayra Touba Khayra. muy kan muy diggante Bac Seras ak keneen Bac Seras da nga ri moo coach yal min ñooy ànd dama koy waxaat Bac Seras retouram ci làmb moo coach yal min ñoom ñooy ànd dama leen koy wax. Bac Seras day ñëwaat ci làmb te bu boobaa dana dana ci ànd ak coach yal min 100 pour cent te danaa leen wax danaa ci joxe bakkan joxe ci àdduna joxe ci gëm-gëm joxe ci lépp ngir kan ngir Bathie Seras mi nga xam ne nii moo daan bégal waa moo daan bégal waa ginnaaw raay Bathie boobu dafay ñëwaat Bathie Seras boobu day ñëwaat waaw Bathie boobu noonu day ñëwaat te danaa leen ko wax nee naa leen Bathie day ñëwaat te coach i pare na ci def ci lépp lu mu mën barki yàlla Bathie day ñibbisiwaat day ñëwaat bokkaat pare guñ Bathie Seras retouram ci làmb Bathie Seras ak fi ko coach Yalmin bëgg a jëmee Bathie Seras ak structure bi koy signé Bathie Seras du ci benn combat du ci ñaar du ci ñett du ci ñeent Bathie mu neex mu naxari daanak ñàkk daanu da ngay bëre journée dootu fi amati Bathie te doo bëre da ngay bëre waaw mobile <laughs> mobile ñu ngi koy moo moom Bathie day bëre Bathie day ñëwaat ci làmb waaw day ñëwaat ah di wax ne nag waal bu raax yéen a ngi may dégg yéen moom sama sama kër la foofu man yen man lii laa bëgg man promoteur yoo xam ne nii am nañu respect ci chroniqueurs yi a ah, promoteur yoo xam ne ni am nañu respect ci chroniqueurs yi muy waa Abdourah waa Abdourah kon yéen dégg ngeen ma Bathie dafa war a ñëw damaa bëgg ngeen signalé loolu ngeen tëggal mu Bathie Seras boobu mu mag waa Abdourah yéen laay waxal tëgg leen ko bu leen xaar waa Gaston di ko tëgg ndax ñun xam nañ problème bi foofu lan la ah Abo sañ-sañ sama frère ñu ngi koy ziar bu baax a baax baax di ko bëggee mais dama leen retour de Bathie Seras ànd ci coach Bakary Koréas maa ngi ñëw Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye maa ngi ñëw bu ma wàccee woo la téléphone woo promoteur ñu xool ku lay booleel bu fekkee ne booy bi nekk parcelle góor a soq góor a soq yow laay waxal góor bu ñu fonto góor bu fekkee ne da ngaa bëgg lekk xaalis ci làmb bu ñu fonto yow góor bu ma paree danaa def tout pour woo dinaa woo Serigne Ndiaye dugal leen ci appel wax ak yéen ñaar bu la ñu fonto bu la ñu fonto laa wax góor a soq yow ak kii bu la ñu fonto ak Serigne Ndiaye ah Serigne Ndiaye yow da ngaa war a bëre yow mënoo doon yaakaaru faas to affaire yi di sooxe ci yow Serigne Ndiaye lii mënul nekk te bu ñu lay waxee ngeen ne non problème mu adversaire lañ am du question problème mu adversaire nañ wàññi xaalis bu tuuti wàññi leen xaalis bu tuuti jël booy yi làmb xaaru fi kenn donc Serigne Ndiaye yow bu ma paree danaa la woo góor a soq bu ñu fontoo wës jàmbaar yow wës jàmbaar nag yow da ngaa bëgg lekk coow wës jàmbaar yow lamb ji ni mu yaatoo ngay dem di bëre koo xam ne nii taalifkat la tey nga dee xam nga mi ngi naan day xaar yàlla may ko fii la ko yàlla dara maye woos ba loo mën a entraîné entraîné ko lu leer laa lay wax ndax na Bébé Saloum Bébé Saloum waa waa waa Sénégal duñ ko mujjee yërëm sëñ Moussa Ka da koo ñaanal wës jàmbaar Bébé Saloum sëñ Moussa Ka da koo ñaanal guddi gi yëpp sëñ Moussa Ka lay déglu te boo moytuwul geeru ñoom xaadim rasul baak tubaab yi dana ko indi ci làmb ji danaa la ko wax Weuz Jàmbaar dugg nga ci problème boo xam ne nii kenn xamut foo ko yekkee Cheikh Super Jamono Cheikh Super Jamono dana signé ak promoteur Cheikh Super Jamono dana signé ak promoteur ñu ngi doon wax digganteem ak Weuz Jàmbaar mais combat bu man mu ko woon gaa pour être honnête avec vous lu tax parce que ñoom ñaar ñëpp samay booy lañ déjà te làmb booleegu leen léegi ci kanam la combat boobu ci kanam laa ko bëggee lu tax parce que Cheikh Super Jamono nag toll na foo xam ne nii dafa war a dem jëli ji mu soxla Pape mbay Pape mbay yéen a ngi gis Pape mbay fi mu jugee ak Dame Sène damay waxaat gis ngeen Pape mbay fi mu jugee ak Dame Sène waaye yaa yee dañ naan Pape Mbaye bëriwul coow kon gars yi waat ko ci biir waaye damay waxaat alburaax Pape mbay jot na Pape mbay jot na mu ñëw dengliwaat ndax lam daj ca diggante ak Dame Sène da for wala booy bi dayoom moo toll foofu kon pambay Mbaye ko indiwaat nay leer bugaatuma beneen combat taxaw fi wala ñu taxawaat leneen te dugaluñ ci Wos Jàmbaar Wos Jàmbaar dugg na sax dugaluñ ci Cheikh Super Jamono ak Pape dañoo war a bokk léegi nag may laaj ndax Dame Sène pare nga Dame boo paree woo woo wat ko ci biir waaye damay waxaat alburaax Pape mbay jot na Pape mbay jot na mu ñëw dengliwaat ndax lam da ca digganteem ak Dame Sène da koo for wala booy bi dayoom moo toll foofu kon Pape Mbaye nañ ko indiwaat nay leer bugaatuma beneen combat taxaw fi wala ñu taxawaat leneen te dugaluñ ci Wos Jàmbaar Wos Jàmbaar dugg na sax dugaluñ ci Cheikh Super Jamono ak Pape Mbaye dañoo war a bokk léegi nag may laaj ndax Dame Sène pare nga Dame Sène boo paree wooma woowoon naa fi boo paree wooma parce que am na promoteur yu taxaw bëgg sa combat mais da na a xaw a fasu da ngeen a xaw a fasu Poutine bu yoof Poutine ñu ngi koy nelaw loo Poutine bu yàggee làmb bàyyi la sa communication dernière bi ngay wax naan nañ la lijjantil combat wu MMA MMA booy boo jëlee combat wu MMA un million doo ko am biir Sénégal bu ñu la France un million doo ko am dama la koy wax léegi billet d'avion ba lañ lay fayee kon bul dof bul dof damane ne ñëwal nga bëre bëreel nga bàyyi sa caaxaan yi yow booy caatu yoof yow booy bu am jom nga booy bu mën a bëri nga booy bu mën a xeex nga dama ne defet warulaa yàqal lenn defet warulaa découragé raw kon yoon la nga taxaw na da ngay bëre ji Poutine dama la koy wax pareel Jackson caatu yoof waaye yéen ñaar ñëpp nii ci li ngeen jóge du ngeen bëre birima du ngeen bëre du ngeen bëri Birima dama ne Birima demal nga bëri ak caatu yoof loolu combat wu gladiateur la loolu combat wu gladiateur dama koy waxaat saa su ne Birima ak caatu yoof loolu combat wu gladiateur la yow Jackson combat wu gladiateur la combat boobu mooy tax ngeen yéeg waaye nag bu leen fàtte Modou Dia gars muut ja tamit yow da ngaa lewet lewet lewet lewet lewet lewet lewet lewet lewet lewet lewet lewet ba mel ni nawe waaye yor bëre bu jéggi dayoo boo xam ne nii koo ne ciix mu xam ne nee na nga ko ciix waaw muut ja yow it nag lan moo xew muut ja koo bëgg bëree muut ja kan lañ la war a jox booy li jógee ci daam seen jóge ko ci double moteur booy heure bi war lañ laa fekk ñu yóbbu la ci kaw law ngay di xaar ci Modou Dia Jackson Jacob Baldé le Baldé Baldé boo duggee biir Pikine dugg biir Kër Fallaay di wër mbër ma ay ñu dekkee sa nga fay fekk ay Ama Baldé yuy màbb jëm ci sa kaw ah, ay ñoom pokala pokala pokala pokala waaye Jacob mbër ma dama koy waxaat Jacob mooy mbër mi waaw Jacob kan la a jël Jacob looy xaar Gris 2 bu Fass foofu moom dama fa wax waa Fass man damay wax ne Gris Gris Bordeaux yow mi jël xaw ma na jël Eh, ni ñu koy waxatee sax sarko xaw ma ndax dëgg la du dëgg mais bu dee da ngaa jël sarko yaa ngi tooñ sa booy yi. Gris Bordeaux boo jëlee Zarko. boo jëlee Zarko yaa ngi tooñ sa booy dama la koy waxaat kon sama gaay ci kanam. yow booy caatu yoof yow booy bu am jom nga booy bu mën a bëri nga booy bu mën a xeex na dama ne defet warulaa yàqal lenn defet warulaa découragé raw kon yoon la nga taxaw ne da ngay bëri ji Poutine dama la koy wax pareel Jackson caati yoof waaye yéen ñaar ñëpp nii ci li ngeen jóge du ngeen bëre birima du ngeen bëre du ngeen bëre birima dama ne birima demal nga bëre ak caati yoof loolu ko wu gladiateur la loolu combat wu gladiateur dama koy waxaat saa su ne Birima ak caatu yoof loolu combat wu gladiateur la yow jakson combat wu gladiateur la combat boobu mooy tax ngeen yéeg waaye nag bu leen fàtte Modou Dia gars Modou Dia tamit yow da ngaa lewet lewet lewet lewet lewet lewet lewet lewet lewet lewet lewet lewet ba mel ni nawe waaye yor bëre bu jéggi dayoo boo xam ne nii koo na ciix mu xam ne nee na nga ko ciix waaw Modou Dia yow it nag lan moo xew Modou Dia koo bëgg a bëree Modou Dia kan lañ la war a jox booy li jógee ci daam seen jóge ko ci double moteur booy heure bi war nañ laa fekk ñu yóbbu la ci kaw lan ngay ni xaar ci mu du Jackson Jacob Baldé le Baldé boo duggee biir Pikine dugg biir Kër Fallaay di wër mbër ma ay ñu dekkee sa nga fay fekk ay Ama Baldé yuy màbb jëm ci sa kaw ah ay ñoom Pokola Pokola Pokola Pokola waaye Jacob mooy mbër ma dama koy waxaat Jacob moy mbër mi waaw Jacob kan la a jël Jacob looy xaar Gris 2 bu Faas foofu moom dama fa wax waa Faas man damay wax ne Gris Gris Bordeaux yow mi jël xaw ma na ngaa jël Eh, ni nga koy waxatee sax Zarko xaw ma ndax dëgg la ak dëgg mais bu dee da ngaa jël Zarko.